mbokk jullit yi ñu bokk yàlla gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu nuyu lislaam mooy jàmm yàlla yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla def sunu kaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi dellu siwaat ci sunu téere bi di ah, matnu asmaawiyati tey nag ñu ngi woon ci buntu julli néew ba tey ci ñaan yi tey nag mooy sunu fukkeel ak ñett maanaam treizième leçon ci téere bi incha allah ñu ngi waaj a tàmbale tey ci xaaj bu mujj bi ci ñaanu ñi ñu war a ñaanal néew ñu ngi taxee woon fi mu ne woon euh, wa taqulu baada rabiati day wax ci gannaaw ñeenteeru kàbbar bi su kàbbaree kàbbar bu ne ñaan yooyu lay ñaan waaye kàbbaru ñeenteel bi nag dafay wax ni allahuma axfir li xayina yow yàlla yàlla na nga jéggal suñu way dund yi wa mayitina ak suñu way dee yëpp yal nang leen jéggal wa xaadirina ak sunu way teew yi wa xaayibina ak sunu way fàddu yëpp yal nang leen jéggal te yërëm leen wa saxirina ak sunuy ndaw wa kabirina ak sunuy mag yëpp yal nang leen jéggal wa zakarina wa unsaana sunuy góor ak sunu jigéen innaka yow yàlla taalamu mutaqallabana yow de yaa xam sunu soppandikuwaay wa maswaana ak sunu saxuwaay waxfir lana yal nag ñu jéggal wali walidina ak sunuy sunuy waajur wali man sabaqana bil imaan ak ñi nga xam ne ñooñu jiitu ci ngëm depuis ci saaba yi ba tey yàlla na leen jéggal ñoom ñëpp maxfiratan azman njéggal boo xamante ne bi boo dogu la ba doo too ci tegati lenn walil muslimin wal muslimaat way jébbalu ci yàlla yu góor yeeg yu jigéen yëpp yàlla na leen jéggal wal muminina wal muminaat ñi way gëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen yëpp yàlla na leen jéggal al ahyaai minhum wal amwaat ñi dund si ñoom ak ñi dee si ñoom ñëpp yàlla na leen jéggal nga ñaanaat nga ne allahuma yow yàlla man ahyatuhu min naa képp koo dundal si ñun fa ahyihi alal iman yàlla na ko dundal ci ngëm ngëm yàlla wa man tawaffatuhu képp koo rey ci ñun fa tawaffahu yàlla yal nga ko rey alal islaami ci kaw lislaam wa asidna bi liqaayika yàlla na ñu texeel ba ñuy dajeeg yow wa tayyib wa tayyib lil mawti yàlla na naa yàlla na ñu neexalal seddalal ñu lil mawti ñeel suñu dee bu ñuy dee yàlla ñu dee dee bu sedd wa tayyib hu lanaa yàlla na nga seral neexal dee bi ci ñun wa wajal fii yal na nga def ci dee bi ñu nar a dee raaxatanaa sunu noflaay wa masaratna ak sunu kontante summa tusallimu gannaaw ga boo ñaane lii nga sëlmal nee na nag wa in kaana salaatu ala imraatin su fekkee ne dangay ngay julli yow julli néew jigéen ngay julli fa ulte da ngay wax allahumma yow yàlla innaha amatuka kii day sa jéebéer la sa jàmbu jigéen la ndax fee góor huu nga doon wax fii haa Mm, summa tamaada topp nga continuer bi zikri haa ci booy wax danga nga naan taanis da nga koy jigéenal xayra lu dul annaka lu dul yow nag laa taqulu doo wax wa abdilha zawjan xayran min zawjiha xam nga góor da nga ne woon wa abdilha zawjan xayran min zawjihi wa ahlan xayran min ahli jigéen nag doo wax loolu jigéen doo wax yal na nga koo wuutalal góor jëkkër bu gën jëkkëram bi doo wax loolu ndax dafa bëgg a wax ne am na jigéen ñoo xam ne seen jëkkër yi leen takkoon ci àdduna bu leen yàlla mayee ñu texe ñoom ñëpp mun na ko takkaat biir aljana moo tax doo wax yàlla na nga wuutalal beneen jëkkër moo tax mu ne yow mi ñaan annaka laa taqul doo wax wa abdilhaali yàlla na nga ko wuutalal zawjan jëkkër xayran bu gën min zawjaa si jëkkëram bii mu dundaloon ci àdduna li annaha ndax moom jigéen boobu xat takuuna léeg-léeg dana nekk zawjan jëkkër ji mu nekk jëkkëram fil janna ci biir aljanna mën naa nekk yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp Euh, li zawjiha fi dunia moo ñeel jëkkëram bi mu yore woon ci àdduna lii léeg amaan na ñoom ñaar ñëpp ñu texee dugg biir aljanna ñu takkante fa mu ngoog nee na wa nisaa ul jigéenu aljanna yi mooy urul ay nii maqsuraatu ñoom de dañ leen a gàttañal ala azwaajihinna ci seen jëkkër yi ku ne fii da ngay gis ku takk jëkk jabar fase ko keneen takkaat keneen takkaat wala mu dee keneen takkaat mais ñooñu benn jëkkër dong maqsuraatu ñoom dañ leen a gàttañal ci benn jëkkër dong la ñu am amul fase amul toxal ngoog kon laa yabxiina duñ leen wut duñ leen sàkkal bi hinna si ñoom badalan ab weccee ma dem ba si kanam kii fase kee jëlaat loolu amul benn jëkkër ba rek ba faw tabaarkal nee na way in adrakta yow mii ñëw nag fekk néew ñu koy julli xamoo góor la xamoo jigéen la nan ngay ñaanee mu ne walam ta alam te yow xamuloo a zakarun xamuloo kii ñu julli góor la am unsa wala jigéen la kon nooy def nee na qultu da ngay wax rek allahuma innaha yow yàlla kii tëdd day nasamatu ko sa mbindeef la mbindeef moom mun naa yóbbu góor mun naa jigéen moo tax mu ne su mata maada gannaaw nga nga continuer bi zikri haa ci ci ñaanal ko ala taani si jigéenal ko da nga ne allahuma allahuma ah, yow allahuma axfir laha warhamha ndax nee na li an na nasamata ndax kat mbindeef bu mu munta doon tashmalu day yóbbu maanaam day boole léeg-léeg azakar wal unsa góor ak jigéen kon wàllu jigéen bi lañuy ñuy ëpp mayal doole moon kon boo koy ñaanal da nga koy jigéenal moo tax mu nga wax nee na wa in kaanat salaatu ala tifli su fekkee ne julli bi ngay julli xalel xale la ngay julle nee na qultu da ngay wax maa taqaddama li jiitu woon mooy min niyati ci yéene mooy li ñuy waxoon ci booy ñaanal mag Euh, da nga jiital yéene wa takbiir nga kabar wa duwaaw nga ñaan su ko defee xayra lu rek annahu yow mi nga xam ne yow imaam bii di jullee néew bi ji xale bi yustahabu sopp nañ ci yow an taqula ba ngay wax baada sanaayi alallaay gannaaw ba nga sante yàlla wa salaatu annabi sallallahu sallam nga julli si yonante bi sallallahu sallam da ngay wax ne allahumma da ngay wax allahumma innahu yow yàlla xale bii dee dee bii tëdd nii abdu ko sa jaam la wabni abdi ko sa doomi jaam la anta xalaqtahu wa razaqtahu yow yaa ko sàkkoon yaa ko doon wërsëgal li mu doon lekk ak li mu doon nooyi wa anta amatahu yow nag yàlla yow yaay ki ko rey wa antatahu yaa koy ki dundaat ëllëg yow ma xiyaam ñun day dañuy ñëw rek di ñaan sunu kéemtalaay kàttan allahuma yow yàlla ijalhu yàlla na nga def gune gila la li waalide yi ñeel ay waajuram salafan mu nekkal leen jiitlaay wa zuxran mu nekkal leen ndenc téef wa faratan ak ak xaarandi wa ajaran ak pay wa saqil na nga diisal bi ci gune gi le mawaasin huma seen peese kaay ëllëg yowma xiyaamati xam nga xale bi amul bàkkaar moo tax mu war a nekkal ay waajuram njiit laay maanaam njiit ba njiit laayu tiyaaba ak ndenciteef ak xaarandeef ak pay lépp li xale bi yor ci tiyaaba luñ koy ñaanal ci waaru ci waajur yi lay dellusiwaat moo tax mu ne bi bihi mawaasinhuma yal na nga def tiyaaba yi ñu ñaaral xale bi yëpp yal na nekk diis waay ci seeni i ñoom ñaar si ñaari waajuram yi wa bi bihi yal na nga màggal ngir xale bi ujuruhuma seen pay ñoom ñaar tax tahrim naa yow yàlla yàlla boo ñu xañ iyaahuhuma ak ñaari waajur yi ajuruhu pay gune gile ndax yonent bi neen na ki ñu njëkk a fay gannaaw néew mooy ñi ko doon gunge ba mu ba ñu suul ko ñoom la ñuy njëkk fay mu ngoog wala tafti naa yàlla boo ñu fitnaal wa iyaahuma ak ñaari waajur yi baaduhu gannaaw gune gile allahuma yow yàlla alxiqu yàlla na nga yënkewal gune gi bi saalihi ci ñi baax salafil mumin ñi jiitu ci jullit ñi fii kafaalati ci yaruwaayu ibrahima sunu maam ibrahim wa abdilhu yàlla na nga wottalil xale bi nga wuutalal ko daaran kër xayran bu gën min daar yi ci kër gii mu génnee mu kër aduna bi wa ahlan ak ay mbokk xayran yi gën min ahli ci mbokkam yi mu bàyyi fii doonte gune la de wa aafihi yàlla na musal min fitnatil qabri ci fitna bàmmeel nanga ko ci musal yow yàlla mu ngoog wa min azabi jahannama ak mbugalu safara yal nanga ko ci musal taqulu zalika da ngay wax lii day bi istri kulli takbirati mujjantalu bépp kabar ngay wax lii wa taqulu nga wax baada rabi gannaaw kabaru ñeenteel bi nga ne allahuma axfir li aslafina yow yàlla yàlla na nga jéggal sunu way ñi ñu jiitu ci lislaam wa afradina ak ñi ñu xaarandi wali man sabaqna bil imaani ak ñi nga xam ne ñooñu jiitu ci ngëm nang leen jéggal allahuma man ahyatahu minna yàlla koo dundal si ñun fa ahyi alal iman yàlla na nga ko dundal si ngëm wa man tawafatahu minna képp koo rey si ñun